xam naa ñu del siwaat rek ci quelques commentaires ci l'affaire Bah Diakhaté ak euh, ak ñim ko seqal euh, d'abord ñu mujjee ñu wax tuuti ci plainte yi yi nga xam ñu ngi koy déposé à tous azimuts d'abord le plainte de Babacar Mboup bu dafa mel ne su jumul juumul dafa visé diffamation en tout cas le délit de diffamation contre euh, contre Bah Diakhaté ci Babacar Mboup moom ça ne peut pas passer ça c'est très clair parce que diffamation ñu fàttali ni buñ la ko defee délai de prescription bi six mois rek la maanaam bu nee boo nee nit damaa diffamé ci six mois yi porté woo plainte bu six mois yi jàllee la plainte est irrecevable donc te yaa la jurisprudence bu yàggul rek bu maître Gabi Sow ne lépp son plainte pa euh, Pape Moussa Sow a été déclaré irrecevable parce que juge bi nee na la délai de prescription a été est dépassé donc te six mois la loolu jurisprudence la boo xam ni jurisprudence ko centre bu tribunal correctionnel de Dakar la ak yeneen tribunal correctionnel yi kon délit de diffamation bi Bah Diakhaté di bi Babacar Mboup di agité xëy na délit injure bi xëy na xaw ma dama xamul nag Babacar Mboup dafa visé injure wala déet waaye fekkee délit bi procureur visé moom mooy di moom mooy diffamation bi saa hmm, moom bu demee tribunal dañ koy déclarer irrecevable léegi nag ndax bu fekkee def ci boole diffusion de fausses nouvelles daf ko viser viser waale injure et et d'autres loolu la waaye délai boobu moom trois mois six mois boobu c'est la délai de prescription donc de toute façon da xëy na procureur maanaam tey dina ko inculper waa dul ko beneen mandat de dépôt renvoyé ko au tribunal des des loolu moo gën a probable bi ci nag mooy de maître Ousseynou Fall avocat à la cour déposé na plainte contre Bah Diakhaté moom itam injure et moom itam diffamation bi ma xaw ma nag diffamation contre maître ba maître Ousseynou Fall kan la woon vraiment loolu xaw ma kon ndax am na moom c'est sûr certain parce que ëpp na six mois bu maître Ousseynou Fall xëy na la wax ak yeneen yi léegi nag bu ñu bëggee dellu ci li xewoon démb tribunal muy bi juge bi di rendre ak li fa xewoon ci procès bi ndax loolu mën nañ ci taxaw euh, seetlu na am na benn seetlu parce que bu ñu waxee d'abord ci ndaw pa ndaw imam ndaw dafa am wuute ci li nga xam ne moom la waxoon ci fële ca police bi buñ koy enquête bi ko officier yi di enquête ak li nga xam ne moom la wax ak tribunal ndax euh, dafa mel ne li mu waxoon foofu mooy comme si que dafa plaider coupable ko wax moo ko wax waaye dafa juum léegi nag bi mu ñëwaatee ci tribunal bi euh, changement de version dafa am ndax moom dafa dàq PV bi dafa wax ni euh, il a été maanaam dañ ko ko forcer mu signé ko dañ ko auditionné état avocat am ñëw fi maanaam la fa wax la na ci wu ko comme si dafa changé version man na gëm naan loolu am na lu def ci verdict bi nañ ci ñëw parce que la waxoon foofu mooy maya mooy ko mën nañoo wax ne c'est maya culpa ah Euh, wax naa lii mais nag juumte la maa ngi jéggalu juumte la juumte la c'est mais on dirait que tribunal bi xëy na après bi mu wax ak avocat am te loolu dafa mel ne réaction yu Maître El Hadji am feeñ na ci comme si que Maître El da ko poussé pour mu bañ a plaider mu plaider non coupable loolu la plaider mu mu jéem a justifier ses ses nag gëm naa ne am na lu mu diisal na verdict bi que bu fekkoon dafa continuer la mu waxoon ci PV wax ni moom njuumte la njuumte la mi ngi jéggalu du ko waxati mais li feeñ ci mbir yi mooy wax ji nii laa ko waxee jubluma ci lii nii laa ko waxee dañ doon saaga sëriñ yi nangam ak naa comme si ka daal dafa mel ne justification yi ñu doon indi di wane ni wax ji maa ko wax waaye nag Bah Diakhaté laa ko déggee bu ma ko déggee maa ko répété waat nii laa ko waxee nii lañ ko déggee ak mel kuy kuy kuy nangu wax ji te avocat am loolu la plaidé te it boo gisee heure bu fekkee imam bi mi ngi jéem a xool ni muy génnee ci wax ji avocat bi rek koy enfoncé mais defe naa di gisoon ngeen may bind ni sax ni mais imam bi bu dee jéem a wax ay kàddu yu rafet ci euh, Ousmane Sonko l'avocat da koy coupé nga gis ni kon l'avocat li mu doon def moom mooy plaider wax ji ne wax ji dara newu ci ki ko ki ko wax am na preuve loolu na gëm naa ni euh, xëy na am na lu mu ànd ci biir parce que souvent boo plaider yu mel noonu ci ay diffamation ki ay diffusion de fausses nouvelles souvent boo plaider coupable boo non coupable wala nga d'accord ne ma da ngaa juum souvent dañ lay doon sur nga dem loolu moo ci ëpp Euh, pour ñu dóor la ci ferme mooy nga koy jéem a justifier wala ma na léegi nag justifier gi ñu ko doon jéem a justifier ak di am nay preuve ak ci baajaxate wax te baajaxate moom il a été très mooy li mu waxoon ci bëri da koo koo da koo da ko jéem a ndax rendre na brandir na sax ay document ci liñ ko doon wax ci division de faute nouvelle document la kii moo jaay kër fii Ousmane Sonko jaay na pàkk Bassirou Diomaye Faye jaay na pàkk affaire góor jigéen yi na ko justifier nee na waxuma ne Ousmane Sonko moom la waaye nag wax naa ne Ousmane Sonko kenn mënu ko tàqale góor jigéen ñi loolu wax na ko ak yu mel noonu kon nga xam ne ba jaxati ma ay très clair doon na jéem a justifier lañ ko fa indee di lam ca dàq ba lu ci ëpp da ko doon jéem a firndeel même juge après dàq na firnde yi loolu lenn man kon gëm naa ne loolu xam na gëm naa ni jàpp naa ne imam bi loolu bokk na ci li ko yóbbee trois mois ferme yi parce que gëm naa ne bu fekkoon position bi mu jëloon ci Euh, ci ci li nga xam ne moom moo ñëw ci PV yi fekkoon foofu la continuer xëy na mu am sursis waaye compte affaire bi diffusion de fausse nouvelle buñ bi ci loolu la ko condamné d'ailleurs parce que beneen délit bi juge bi daf leen ci relaxé parce que bi ñuy wax ni maanaam nit ki bu fekkee ni maanaam offense dafa offensé nit koo xam ni dafa yor yenn yenn yenn yenn pouvoir njiitu réew mi wala mu yor pouvoir njiitu réew mi yëpp loolu juge bi daf ko écarté ah, parce que wax dëgg yàlla article boobu déjà c'est problématique parce que comme ni nga juge bi waxee nit mënul am pouvoir président yëpp xam nga euh, article dafa wax ni koo xam ne da ngaa yor da ngaa yor yenn ci cëru président wala nga yor cëram yëpp alors que président nit mënul yor cëram yëpp c'est impossible amul amul benn cas boo xam ni nit mën na ci yor cër président président yoon may ko mu dénkaane cëram yëpp la défense la diplomatie ak yeneen constitution bi da koo tere mu délégué ko kenn mënul délégué pouvoir yooyu kenn xam nga kon loolu c'est impossible beneen article bi euh, beneen bi mooy pouvoir président bu demee ba abs maanaam soit mu indisponible mu feebar boobaa pouvoir yi mu yoroon constitution bi moo ko jël dénk ko keneen te même keneen kooku mu ko dénk dénk ko yëpp kon article boobu c'est impossible kon nuñ ko bindee déjà c'est problématique juge bi gis na ni loolu amul maanaam délit boobu amul parce que kenn commettrul délit boobu parce que li ñuy wax ni premier ministre dafa yor ay dañ ko dafa yor ay cëri président de la bi gisul ni loolu lu am la gisul loolu moo tax dafa leen ci délit boobu kenn jàpp nañ délit boobu amul parce que matériellement délit bi c'est problématique moo tax mu relaxé mais daf leen condamné au au contraire ci division de fausse nouvelle maanaam siiwal ay xibaar yoo xam ne dëgguwul parce que kon preuve yi ba jaxate jéem a andi bi gis na ni loolu doyul mu wérul comme imam Ndaw kon nag li ma gis mooy malheureusement ci sama gis-gis man mooy Me El Hadji jàpp naa ni bokk na ci ñi tax ñu dem kaso ci ci sama gis-gis parce que bu fekkee danga nga am koo xam ni euh, dama li ma gis rek mooy Me El Hadji ci sama ci sama gis-gis laay wax nag dossier bi moom daf ci profiter pour xëy na rek la ay compte politique am am turbine bu mu dalee ci kaw Ousmane Sonko mais amul amu ci lu ko amal njariñ parce que ni mu doon ni mu doon doxalee dossier bi mooy ñii buñ demee kaso buñ demul kaso garaawul man li may intéressé mooy naa am possibilité dal ci kaw ki ma bëgg a dal rek te loolu feeñ na ci ci ci ci ci tribunal bi dal la ci kaw Sonko plusieurs reprises wax ji la ko la ca gën a la mu gën a wax sax ci lool la mais pas jéem a dàq li nga xam ni moom la procureur tegoon de ce point de vue yeeyu ñu benn yeeyu ñu benn bi malgré lañ jéem doon jéem a brandir yëpp mooy Ousmane Sonko nii la Ousmane Sonko lee la juge bi finalement dafa mujjee daf leen mujjee condamné ci diffusion de fausse nouvelle boo gisee sax même bi ñu seen réaction ñi ngi wax ni ñun li ñu amaloon solo rek mooy liñ doon wax Ousmane Sonko daa am cëru président loolu juge bi dàq na ko kon alhamdulilah rabbil alamin nga xam ne ñi dem kaso sax ñoom garaawul ñi ngi wax ñoom dinañ interjeté appel te xam nañu buñ interjeté appel lañ leen gën a enfoncé lu man a xew moom balaa ñuy enrôler appel bi la plupart de trois mois bootul lay jeex exception moo fi ma am ñu ñu enrôler appel Ousmane Sonko ci quinze jours waaye loolu kon xamoon na motivation yi de ce point de vue euh, gëm naa ni ñàkk a def appel sax moo gën a wóor xëy na pour mën a bénéficier wu ci grâce bi ak et kon daal ci tank mooy dossier boobu moom gëm naa ni avocat bi moo leen enfoncé xëy na manoon nañoo jël sursis ku mel ne ah, en tout cas imam Ndaw mënoon naa jël suuf si am na noo xam ne bu fekkoon position bi mu jëloon ca enquête ci enquête bi continué na ko malheureusement continué wul ci loolu dafa doon jéem a justifier yenn ci wax yi loolu gannaaw jëm na ko justifier nag mënoo ko justifier euh, conséquence bi mooy te condamnation bu diis la parce que trois mois ferme tamit euh, xawul taxul mu sedd mënoon naa jël suuf si mooy bu fekkoon mea na ko ci tribunal bi comme ni malheureusement loolu amul léegi nag man sama gis-gis ci wàllu diffamation ak ak injure publique man wax naa ni dama gëm ni délit de diffamation ak offense au chef de l'État dama gëm ni dañ ko war a dépénaliser je m'explique dañ ko war a dépénaliser nag tekkiwul ni doo dem tribunal déedéet ku diffamé ni dafa la yóbbu tribunal mais ku diffamé ne bu la yóbbu tribunal ñu bañ ko tëj soit ñu condamné ko pécuniairement jël xaalisam ba noppi imposer koy exécutif public ginnaaw buñ ko bu ko juge bi condamné coupable mu imposer koy excuse publique ba noppi mu am une condamnation pécuniaire bu fekkee récidive am na nag bu boobaa maa ñu mën la poursuivre mais man gaw ma ni délit de diffamation rek ak délit yu offense au chef de l'État war nañ ci mën a jàpp ni ñu di leen tëj quand parce que gëm naa dafa ëpp euh, kon gëm naa diffamation daal war nañ fexe ba kenn du ci mën a yóbbu nit kaso comme yéen dëkk yi boo diffamé dinañ yóbbu tribunal bu ñu la condamné xaalis ñu ñu fexe ba exécuter condamnation boobu gëm naa loolu sax mooy gën mën a tax wax ji wàññi parce que am na ñoo xam ne seen poos ku koy laal bu yàggee léegi te dëkk yi nga xam ne sax ñoom ñoo def loolu fa la diffamation gën a néewe dëkk yi nga xam ne dépénalisé nañ ko comme Canada <coughs> mais bi boo fa diffamé nit da xaw parce que buñ la condamné da ngay fay xaalis bu bari te dañ dañ koy exécuter fa la force de ce point man gëm naa ni li gën mooy ñu dem ci dépénalisation bi encadré ñu fexe nag ba buñ la ci condamné pécuniairement nga fay ko ñu exécuté ko gëm naa ni moo gën parce que yooyu dëkk yu bëri dépassé nañ ko donte nag man waxuma injure parce que injure leneen la attention injure leneen la injure publique beneen affaire la man ah waxuma nañ ko dépénaliser am na dëkk yu ko dépénalisé comme ay Amérique nga xam ne ay saaga yooyu ñoom du tax ñu tëj nit waaye ñun jàpp naa ne ñun tollooguñ foofu.